jàng ba mu mokk wut doole wut expérience am résistance doo ko bokk ci làmb su lay gaynde la moo bëre démb grand combat si xam naa ko gars yi xam nga parfois tamit dañuy toog seen bëgg-bëgg dañuy bi jeex mu ñëw aywa Père Pala arbitre bi mi ngi wax ak ñaari mbëri bëri nañ ba mi-temps a songoowuñu ah arbitre wa sifflé de ci ay pexe lañ nekk ay pexe lañu nekk waaye du sotti de nañu bëre waay te ñoom ñaar dañoo xas-xas loo woon te signature ba. ci ay pexe lañ nekk. ah pexe yooyu muy nekk waaye arbitre baa ngi leen sikki mu rek. ci ay pexe ci ay pexe lañ nekk. arbitre bi sikki mu leen rek bañ leen a bàyyi fen waaye i pexe nekk ci dëgg da koo gën. waaw boo nekkee ci dëgg nag da am jàmm am salaam. alma mi ngi direeku ci kawam. bokkaas na ko moom moom gis na fanam. waaw ñoom ñaar ñëpp dañuy moytonte. kenn ku ci nekk kurpeñ bi ngay sànni du kurpeñ boo doon dëgg ci yow maanaam dama lay dóor te dooma dóor loolu nag su amee ci bëre rek sañ-sañ doo tey toxu te sañ-sañ bu toxoo léegi da ngeen di maslaa te maslaa fu mu dugg tricherie am fa. tricherie da baaxul. ah foofu la ñu nekk nii ñoom ñaar ñaari xale yoo xam ne passé nañ 80 kilos di bëre kenn laalul sa morom benn kurpeñ dalul ah loolu nag teguwul si yoon kurpeñ yi ñuy sànni baaxul. li ma seetlu daal heure bu koy cokkaas te bi ci ginnaaw. kan la. moom caatu fanam. waaw waaw. bi mu utilisé crochet moom yëkkatiwul tànk bi. gis nga gis nga tànk bi ni mu ko yëkkatee père bàyyil message message yi père bàyyil whatsapp ay ca caatu fadam ak allemand. père Ba la ñu lay envoyé waxal ñu bàyyi ko. mais Lamine sa copain nga yëngal liiru jaan la ñuy wëy. borom MMA bi. caatu fadam. ak allemand père Balla yow jaaxal nga ma mais lu ma la jaaxale xale bu tuuti topp mag naan ko jaaxal nga ma jaaxal nga ma da wax li ma la jaaxale ma ngay jaaxal xale a ah, waaw mais xale bu fekkente ni dafa yem place am kenn du ko jaaxal aywa xoola ma xeex bi xeex bi ah xeex bi daal ah eh, bii xeex xeexu làmbatu rek bii eh. Eh, yoon de ñii xeex bi ñuy xeex xeexu arrangement la. arbitre ardo ardo ardo allemand. ardo mënoon na jee ñàkk sax. <laughs> père ardo yi ardo kay mën na ñàkk nag père. <laughs> da nga yaakaar ne kurbeñ bi sabul. a ah, mais xam nga nag am na kurbeñ yoo xam ni léeg-léeg mu romb la rek nga naaj fekk dalul sax. demal mu dóor la ko. lu tax mu ma koy dóor te ngay ndaw dama yow mu dóor la ko yow. lay boo ko jëlee man de xaw ma loo ma yéene ay dóor gu ne gu toll ni yow. ah. xale bu tuuti naan mag mi demal ñu ñu dóor la waaye lu may moytu man fii ma toog dafa am lu may moytu. fii nga toog oh. nga toog lu ne fekk na fi. fii lu ne fekk na ma fi waaye jàmm ak salaam dong ma fi fekk. ah mbuusu ndox mbuusu galaas. mbuusum galaas ma ne bañ ma ko dóoree keroog dama kat ab yi dama kat ab de. lenn moo ma jaaxal fii daanu ko fi ñaari yoon. wax nga ñaari yoon. man de sama daanu yi ngay toppatoo ak yi ngay calculer. ak yi ngay lim moo ma jaaxal problème bi mooy. dama la ëpp gàllaaj waaw yow amoo gàllaaj man ndax foo jëlee gàllaaj ah eh, da ngay làmbatu rek amuloo benn gàllaaj te man sax dama fee nekkul nag ak ay xale di yëppalante ay gàllaaj man waaw ñaari mbër yaa ngay léewtoo non non ralenti la da ngay léewtoo arbitre ba sifflé dem ma ngi koy topp ngay doxe wet ña jëm te saaku ya saako yi fekkiwul kenn yéen a ko fekki ñii dañuy naxante ah Allemand Allemand avancé na ci kawam Allemand avancé na ah Allemand dóor nañ la benn arrêt. Allemand sëkkatal na ko Allemand sëkkatal na ko. waaye fils de saako yëpp fils de Fadam dafa eh, mel ni. Eh, eh, fils de Fadam doon na ko Perkin fils de Fadam boo génnee da ngay jël avertissement Perkin boo génnee Perkin. Wilaas Wilaas. am na lu xew lu xew ba nga àtte Wilaas am na lu xew. Wili àtte na. na lu xew. père Pali Wili atte na. ah Wili war woon atte waaye nag Ardo ñëw. almaa day naani soow. al naaniwul soow dañ koy diw alcool. naani soow a gën a yomb. ah naanu fii soow amu fi fii micro korob ak moo fi nekk. Xaadim Anta moo ko tuddee noonu ànd nañu naani soow. waaye fu ñuy naana ji soow. ci Ardo Xaadim Anta loolu muy wax ni xam na ko. Ardo. Ardo alcool la fa am ak pousa wëñ. <laughs> en tout cas mais maa ngi nuyu Umar Sow. Umar Sow PDG Umar Sow PDG Umar Sow ñu ngi koy nuyu. waaye nag maa ngi nuyu nag. oh xale bi maam góor maam góor. góor yombul góor yombul. jënd na ko tam léegi ba bay seetaan. jënd na ko. ah ba ñu jënd lamb yi ngay lamb ju neex kay ku ko dégg jënd ko. nee nee naa xale yi nuróole bi góor yomb la ci gaaw. nee naa xale yi ku bëgg mbaseñ bu rafet góor yomb la ci gaaw. nee naa xale yi. filaafil góor yomb la ci gaaw nee naa xale yi gàmm mbaa màggal mbaa tabaski mbaa koor mbaa korité demal nga seeti góor yombul fan la nekk mi ngi fii ci euh, tournalu Baye Baye. marché bu bees marché bu bees. fa la góor yombul nekk. butigu sëñ Babacar nga tournalu Baye Assane. tournalu Baye yooyu yëpp góor yombul la fa nekk. tournalu Baye Assane yëpp foo tourné gis bitigu góor yombul. bitigu sëñ Babacar xam nga tabaagay sànq bi mu ñëw fee fekku la fa waaw. wala gisante ngeen. gisante nañu waaw. Zona. waaw. nee naa ko yow Père Pala. waaw na ngeen a jëm mag. waaw tam nit bu jëmee mag day naqari deret. waaw ndax mënoo léegi ñaari minutes yu ñu wax. gerte da ngay gerte. moo tax barki démb nee naa ko doo jóg c'est normal. nee naa ko barki démb bul jóg. waaw mu ne ma ma ne ko mënoo jóg toogal. ma ne ko nag Père yaakaari seetaankat yi. ma ne ko nag Père il faut nga am démocratie. <laughs> boo waxee sa xalaat. waaw bàyyi nit wax seen xalaat. mais man bañu ma kenn wax xalaatam de. a ah, mais amoo démocratie. a ah, dem ñàkk démocratie mooy lan lan laa wax ak lu ma def man ku wax ma déglu la waaye bu tontu jotee dinaa tontu foofu laa yem ah woykat yaa ngi noonu. Fat Njaga Fat Njaga jabari soxna Boy Ñang eh, kii Cheikh Ñang soxna Cheikh Ñang dëkk ca Thiès di ndaanaanu woykat góor yombul ne ci moom laa nekkoon jeexalu ma ci moom. jeexaat góor góor yombul jeexalu ma ci moom. maam góor maam góor góor yombul taaliba sëñ bu mag maa ngi koy nuyu bu baax macha allah père Pala loolu am na jo ay waay Ibra Ibra Diouf woo Ibra Diouf la bàyyil woote bi Ibra Diouf ñoo ngi en direct père buñ leen buñ ko woowee rek mu sànni micro bi vraiment man waaru naa ci père Pala tëdd naa ba guddi jommi ci père Pala ay waay Ibra waaw léeg-léeg Ibra Diouf Mbexane production Ibra Diouf kooku nag moo tëggoon dimaas ci heure bi moom ñu woote woon le 27 octobre la ñëwaat waaw le 27 octobre lay ñëwaat ndeysaan xale bu baax xale bu yiw xale bu gëm boppam xale bu nangoo liggéey maam góor góor yombul ndeysaan père soxna saa ngi noonu di way ànd ak cuun ndeysaan ñu ngi ñaanal suñu maam xaar may ma jaaga yàlla gën a gudd amin waay yàlla gën a wér yàlla gën a wér séeri Siteu ah Siteu waaw ah nopp na xale bu baax nopp na xale bu yiw borom le 24 novembre eh le 24 novembre fan la combat bi jàmbaar production jëm ak ñaari xale yooyu bala waaw combat bi gars nañ ci añca nañ ci añca bañ cee reer boo xamante ni mën nga cee naan ataaya naan ci léwal naan ci deuxième te wax ci bi jeex combat boo xamante ni cin luy bax la amul bu seet waaye combat la boo kenn mënatul wax ci histoire lamb te boolewuloo ci combat boobu combat bu neex la combat amateur la ñëpp a ngi ciy xaar loolu am na solo Père Pala Diop. waaw. ba léegi arbitre sifflé waat na. waaw ah, bi dafa xaw a yàgg. combat bi dafa jël temps. waa ana Malick Ngom ñëw na. Malick ñëwagul xëy na day def passation de service ba pare yegg seegul. a ah, mais mënoon na ñëw seetaan si. ah lamb ji lamb ju rëy la de. wala mu ñëw arbitré. yee lamb ju la. wala mu ñëw arbitré. ah déet mënatu la arbitré. ah mu def mu def rek. ah benn mbaam la mën a war mais mënta war ñaari mbaam balaa mën a yem. ah yow de di war ñaari mbaam ba ñett. fan ma gisee war ñaari mbaam ba ñett danga may wax fi nga ko gisee. kon yow yaay ki nga xamante ni lu ma wax nga ko wut loo wax ma ko mais maam Thierno Wakana depuis New York maam Thierno maa ngi koy nuyu Ali Diop ah bi nag dafa doon combat boo xamante ni ah éhé eh, eh. combat bi ña ngay wër eh eh waaw da ngay jël avertissement de ah day jël day jël da ngay jël avertissement de. ah day jël. mënoo bëre di kenn du ma door mënta nekk. mënta ne. da ngay doore ñu lay door. ñu lay door am nga ñaari avertissement xaw ma nag sa adversaire bu mu am. ah combat bi yoonu mu jël baaxul. làmb da ngay doore. ñu lay door ñu lay door. doorante la. waaw mais arrêté médecin ndax du am nee na tey ginnaaw gi du laal suuf waaye nag daan dafa ëpp solo daan dafa ëpp solo ginnaaw gu bañ a laal suuf daan dafa ëpp solo waaw arde bi xanaa bokkul ci ñiñ dàq. ah mais arrêté bi presse bi ñoo ci gisul seen bopp ah arrêté bi xam nga arrêté euh, bi bi faloon bal euh, Bira Sène lamb ko kaas même système boobu moo ñëwaat presse bi daal gisuñu seen bopp ah, ah waaw mënta dem sans fo photographe kooku yàgg naa bokk seen seede waaw ca la musa bokk waaw ca la musa bokk Lamine boobu Lamine waaw Lamine Sow Lamine Sow Lamine Sow waaw ca la musa arbitre bi woowaat na ñaari mbëri waaye ak lu mën a xew daal arbitre lu muy def nii mais man dama yaakaaroon ne Lamine bokk nga si ñu ministre bi conseil ministre bi consulté wala père Pala ministre bi koy consulté ah. daa am ñu ko woon ko woowal ñi bàyyi ñi waaw loolu fi am jël nañ la jël nañ la jël nañ ko ñi ngi raak père Pala Sénégal kat looloo fi am ñëw ci combat ba pare waaw jël na ko waaw caatu fa la daan na ko ah Kumba Njaay lonk na ko caxabal ko. daan na ko almaa yéeg nañ la caxabal. caatu Fadam daan na ko. ma ngay wàcc. moytul. ma njaay sone. caatu Fadam daan na jël bu rëy waay. jam téere ngi noonu mburum daa mburum daa moom. dañ la war a jàppale man Samb yow la dañ la